xew na ci réew mi ñu leen ko tey nag fi ngeen ñu gis ñu ngi taxaw ñu ngi digg Ndakaaru fi nga xamante ne la wax Petersen gannaaw lakk bu fi am bërki démb ci guddi vers 2 heures du matin mu nekk lakk boo xamante ne am na ay perte yu bëree bëree bëri moo waral tax tey émission xew-xew ñëw fi fa yéenee xool dégâts yi nga xam ne am na fi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñàkk seen ay matériel parce que sant nañu yàlla ba amul kenn koo xam ne ñàkk na fi bakkanam ndax fekk na nit ñi wàcc waaye am na ay matériels yu bëree bëree bëree bëree bëri yoo xamante ne ñàkk nañu ko si lakk boobu kon papi laa àndal tey papi ngoom dag may topp ñu daal di xuus dugub yi peut-être seen xool li nga xamante ne mooy jëye ji fi am voilà ñu ngi nii si biir marché Petersen mi nga xam ne fi la jëyee ji am barki démb si guddi sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waaw ñoo ngi lay fay soxna si. voilà tey dañuy ñëw fekk fii jëyee ji nga xam ne fi am barki démb si guddi yow nga nekk fi Petersen am fi place nan nga yëgee xew-xew boobu. waaw xew-xew bi ni ñu ko yëgee mooy dañoo toog rek ba benn heure bi ay 2 heures du matin yooyu ñu woo ñu téléphone nañu marché bi mi ngi lakk après ci leen ñëw déplacé wu ñëw mais bi ñu ñëwee après ñu fekk euh, mu lakk lu yam rek nag bariwul nag wax fa dëgg yàlla waaw mais nag bi ñu ñëwee nag ñun dañoo yaakaaroon sapeur day ñëw fay ko mu jeex sapeur dañuy ñëw nag di wër daale dara loo xamante ne nii day fay quoi oto rek lañ gis comprendre nga ñun moom man moom wax fa dëgg yàlla samay place a ngi nii mais mosuma fi am lu lakk mais chaque jour lakk man la ñuy njëkk a woo sama numéro yi dafa affiché sama sama sama boutique mais lakk saa bu amee sapo day ñëw di wër rek xaw ma nag loolu lan la comprendre nga li ma la wax parce tamit faaw ñuy sóoraale lakk mën na am ci foo xamante ne nii euh, maanaam bëgg nañ sax jëlee ñi ñu foofu mais nañu sóoraale ñi fi yor ay valeur dafa am ñu am ay valeur fii. dégg valeur bu bëri moo fi am. ma fii dafa am pàkk gaa pàkk bi am na ay mbuus am na ay salte am na ñu fay saw mais ci ginnaaw ay dépôt chinois la yoo xamante ni chinois yi indiwuñ fi alal ju ndaw tey boo ñëwee mënoon naa la yóbbu ba ci magasin chinois bi. la mu lakkalee man mii moom laa jaay biisu benn carton bu ne day def lu mu néew néew 3 millions wala 4 millions ah. mu lakkale ci loo xamante ni xamuñu ko sax bi ñëwee dañoo ñëw roose xam nga yi dem nañ seen xamuñu sax lan moo lakk fii il fallait que tamit man waxuma kenn moo ko lakk mais bu ñu bëggee jëlee ay nit fenn moom jarul lakk moom jarul taal ko waaw parce que taal moom baaxul te man seetlu naa léegi Dakar sud yi ñu soxla yëpp yi ñu soxla yëpp bu ñu ko bëggee jël ah lakk nga fay dégg quoi gaa nag man jiiñu ma kenn mais tamit man darul sama xel quoi fu foo xamante ne ni ay néew ji dooleem fa rek xam nga ay gaa ñi fiy ñëw di liggéey seeg ñooñu ñëpp ay Sénégal séeréer yeeg ñuy fóot seeg gaa moo am fii man dugg naa fi boo bëggee saw sax gisoo foo sawee fa ngay dugg làqatu fa saw am na ay mees yu yàqu ay lal yu yàqu mais xoolal ñi leen artu entouré parce que immeuble bi da doon lakk de immeuble Dame Mansour bi ci suuf yëpp bi ma yéegee ci kaw maa ngi seen moom ay pneu am lépp mu wóor ma ne pneu yi bu jàppoon plus de 500 pneu bu jàppoon jug immeuble bi da koy lakk booy même booy jëlee nit fenn na nga ko fa jëlee jëlee bu rafet parce que tamit am na doole boo xam te ne su bëggee jëlee fii waa pàkk bi na ñëw jëlee leen fii xam nga li ma la oto gaare gaare ay policier ñu ñëw taxaw jëlee leen fi ñu dem seen yoon parce que tamit réew bi réewu yoon la digg ndakaaru lañ ne waratu la am yu bari mais nag bul ñëw di taal taal boo ko defee xamoo fu muy yem falaam bi doon dem ci kaw air bi rek mënoon na wàcc fii laal benn fiil taal leneen mën na taal lu ne waaw nañu jë dimbali ci lool rek bu ñuy bëggati di jël fenn wala dara ñu koy jël jëlin bu rafet waaw man nag waxuma kenn moo taal lenn mais man li ma fekkee man sapeur bu ñu bàyyi woon booyi koñ bi ne leen xëy dugg leen ngeen fay li ñu fay ko mais sapeur fii la ñuy taxaw di wër di wër man maa ngi ci rond point bi deux di du matin laa dawal sama oto ñëw gaare ci centre bi fële comprendre nga ay oto yi fi lakk am na am na benn mécanicien boo xamante ne nii li fi lakk ci oto ay cinquante oto presque mënoon nga dem nga xool xool nga ay ay oto yu bari ay oto yoo xamante ne ay mbàkke mbàkke yu oto dégg naa barki démb bi ma ñëwee di ko masaw mu ne ma ki fi indi démb benn Mercedes boo ay prix de ay bu ñuy jëlee nit ñi daal na leen jëlee jëlee bu rafet bàyyi ba guddi sax nga ñëw ron seeni bagage tegal leen ko ci biti moo gën taal waaw waxuma kenn moo taal waaye taal baaxul quoi. kon euh, lakk yi dafa commencé ay 2 heures du matin presque ba dégg naa ba ay 4 mu ngi lakk. mi ngi lakk mais li lakkoon bariwul quoi moo gënoon a neex a fay lu ñu fay. xam nga tamit li ñu fay man taxaw naa lenge bi jug di fay mais lim doon fay lim fi njëkk a fekk moo ko gën a jige moo ko gën a neex fay loolu ay nit mën nañ ko fay loolu boo ñëwoon indaale say ñaari camion nga ñëw fay ko day jeex quoi fa dëgg yàlla man li ma fekkee moom lu neex a fay la waaye demoon na ba tol mois boo xam te neexatul fay. waaw non pas ngelaw li sax man daal man daal man comprendre lu ma quoi daal nañ jàppalante quoi. assistance si waroon moom amul daal. waaw nañ jàppalante quoi. baadoole bi tout le temps moom lañ war a gën a teg loxo sax. waaw moom lañ war a gën a teg loxo gaa ñi fi lakk la ñëpp liñ lakk la seen xaaju xaalis la wala seen desitu xaalis mais tamit dafa metti ko waaw wax fa dëgg yàlla. sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waaw ñoo lay fay. ñu fekk la fi place bi nga xam ne fi la xew-xew bi amee yow da nga fi am place. waaw waaw dama fi am place waaw. noo yëgee li xew. ah xanaa di ko mititlu rek. waaw di sant yàlla nag ndax lii moom ñoo ko mën a am waaye moom mënuñoo am. waaw dañ sant yàlla rek xam ne lii mënoon na yóbbu leneen. comme nag yàlla da ko yemale ci suñuy bagage waaw ñu sant yàlla rek xam ne yàlla moo ñu ko teg. yow nan nga ko yëgee. waaw man moom dama wàcc liggéey ba pare dem ñibbi fi ma dëkk Pikine fi leen ma wooyee na ma ay une heure du matin na ma place place mi ngi mi ngi tàkk après ñu jóg xool ñu jëlee oto pour ñëw fii mi nii ñëwee fii fekk nañ fekk nañ fi ay sapeur pompier mais sapeur pompier moom daanaka doo ma ne liggéeyuñu mais. mënoon nañoo gën a liggéey comme niñ liggéey parce que satisfaction bi ñu doon xaar ci ñoom daal wax dëgg amuñu ko parce que ñoom bi ñëwee bi ñoom am nañ toog nañ presque woo nañ leen avant une de temps yoo xam ne pompier gi ak fii nga xam ne boo xool matu sax 500 mètres ñu yéex a ñëw bi ñu ñëwee ñenn ñi dem songe côté bee au lieu ñu xaaj xaaj xaaj xaaj biir pàkk bi dajeeg tàkk takk li fi mu déparé mais defuñu ko waaw bu doon den dëkkandoo yi ñoo doon fay mais dem nañ ba affaire bi ëpp leen doole mënatuñ dara tamit finalement mu tuuse ñëpp fii kenn génneem fi benn bagage kenn génneem fi benn bagage. donc kon lakk la ngeen fi xaalis bu bëri parce que pàcc bu ñu ko gisee ni mu toll nii kenn génnew fi benn bagage kon li fi ñàkk si xaalis bëri na. waaw nu mënuñu ko estimer kenn ko ne moom sa place rek nga mën a xam moom waaye bagage yi bëri na marchandise yi kenn génnewul wax dëgg yàlla waaw. lan ak lan lañ fi daan faral bu dee suñ fii ñu moom ñun bant la ñuy jaay waa waaw bant contreplaqué poutrelle yooyu lañ moom lañ doon jaay am na ay soudeur yu ñu làngaloon fii tamit ñoom seen bagage yeek seen matériel liggéeykaay bi yëpp dafa tàkk bu dee côté bi ñoom ay ay matelas la ñuy defar ak ay ngegenaay yooyu waaw mais ñoom tamit mooy loolu kenn génneewul waaw. ñu leen masaw bu baax a baax lii mu fi doog a am. waaw wax dëgg yàlla ñun moom ñu ngi ko fi doog fii waa def nañ fi booy seet ëpp na di 15 ans de. yow da nga bokkule si li nga xam nañoo ñoo yàq lakkale fii si paak. waaw dama bokkule si ñu lakkale fii ci paak bi waaw. yow loo fi doon jaay. man bu laa doon jaay. d'accord noo yëgee ay 2h20 sama benn xarit bu may liggéeyandoo moom fii uh-huh. mm-hmm. maa ngi dëkk Géejawaay cité comico moo ma ne ma pàkk bi mu ngi tàkk ma ne ko pàkk bi fan lay tàkke mu ne ma ca kaw la tàkke jëm si ci ñun ma ne ko iskalo mu ne ma ma coupé waat sama beneen copain wooyaat ma laa door a jóg yu génn mënuma am ato ma tëdd ba fajar ma jóg bi ma jullee ba pare jël ato ñëw bi ma ñëwee nii laa fekk daanaka policiers yi baare ñu fali ne du ngeen dugg après ma ko man dama ci am place fii laa nekk ci bi ma ne wëri ñëw dugg ñëw fekk nit ñi taxawandoo noonu daal lañ ci toll ma ñëw laaj ñu ne ma comme ni ni mu demee ci yow noonu la demee ci ñëpp génneewuñu dara amul kenn ku mu xamante ni bi ko bokk kon pàkk bi li fi nekkoon yëpp daanaka lépp lakk na ba jeex lépp lakk ba jeex amul ku la ne mën a génne boo ko tàmbalee fa mécanicien ya bawal moom mu ngay wax ba cëpp fii ci ñun amul kenn ku génne dara dara ñi fi fanaan lu bëree bëri lu bëree bëree bëri affaire pàkk moom doo xam marchandise mi doo ko mën a simi da ngay jënd rek ñëw di teg di nga jënd marchandise boo xamante ni bi sax doo xam li nga ci def da jéem a jënd rek ba jotu demaat di jëndaat di wax dëggante yàlla yàlla xam na ne billaay wallaay lakkale nañ fi xaalis bëree bëree bëree bëri ko loo xamul na xamoo ko fii mi ngi tudd Paterson Félix Eboué. ok ñu leen massaw bu baax. waaw ñu ngi koy bokk bu baax a baax wax dëgg yàlla di la massaw di la ñaanal wax di yàlla ndax bi nga ko déggeen nga ñëw say te jokk lañu coow leen lépp. yal yàlla defal jàmm. ñu ñëw fekk la si bërëb bi nga xam ne fi la jëyee ji amee yow nga am fi place def nga fi ñaata at. Ah, daanaka lee ma am fanweeri at. Mhm. lan nga fi amoon comme ay bagages. soudeur laa fi doon def waaw soudeur métallique daal. laa doon def fii. kon fanweeri at daanaka def nga ko fi kon si ñi fi jëkk xanaa si nga bokk. si laa bokk ngénte naa fi ñeenti doom si li war may jëlee fii waaw ñeenti doom de am naa si ñaareel it te fii laa ko jëlee. léegi na nan nga yëgee xew-xew bi dal seen kaw. metti suñu kaw rek ñu di ko muñ te xam ne yàlla ñu ko joxoon moo ko jëlaat te fii ñu nekk nii daaw ñu fay de jullit yu baax ñoo ñu ko joxoon ñu ciy liggéey ñu baax du tudd tur nag parce que kuy def lu baax. yóbbu ko sa yàlla rek te ta yàlla tax waaye wax dëgg fii de mbooloom ñi fi nekk ñëpp kenn ku ne dañ la abaloon ñu baax nag ñu abal julit piir du ko commencé ba mu ko xamee seen baay ba yegg si ñoom jullit dong laa xam si ñoom parce que jamono ñu toll lu baax lii nit defal la ko si jamono ñu toll lu jafe la waaye wax dëggaal moo ñu ko defal ñu koy sant di ko gërëm waaw pàkk la boo xam ne ni ay nit ñoo ko moomoon bàyyi leen fi ngeen fi liggéey lu mat fanweeri at te musu waaw fay. waaw masuñu fay luyaas te bëgguñu kenn fayeeku kenn luyaas bëggul nga luyee it bëggul nga luyee am na naa naafiq yoo xam ne nee am na fii dépôt luyee na lakkale fii génn dañuy fii dépôt bu ñu luyee amu fi nit ñi dañ ñoo ko abal ngir yàlla yonent bi seen ndigalu bàyyi abal ñu fii ñu fi suturoo nee naa la ngénte naa fi ñeenti doom ay ponkal lañu toll nañu ñii kii ku ko am. yaakaar naa ne doo ko ne te fii laa ko ngénte sama lii mërsëg gi may daan fii si laa ko amee wax dëgg yàlla ñu nekkoon fi na nekk benn déggoo def lépp ndogal nag moo ñëw dal suñu kaw ndogal la bu lees ko dañ koy nangu rek wi kaat ko si yàlla déedéet man nag trois heures du matin lañ ma woo sama kër Malika ma départ ñëw avant may génn lu ne laa def pour ñëw fii mais yàlla suturaan ba ma ñi ma ñëwee ñu dugg parce que tan nangu ñu dugg Euh, dama yaakaar ne Sénégal gi ñu toll nit ñi dañu war a jàppalante dimbalante néew doole yi ñun dañuy foraatu rek atelier leen yor xam nga euh, façon li ñuy def nii ñoom dañ ko ñàkkal fayda mais ñun ñu koy def ñi ñàkkaluñ ko fayda parce que dañ ciy def teranga nit day ñëw fii ñàkk dépasse ma yëkkati ñetti mel waa juróom téeméer mi jox ko te sama morom lay doon baa moo mat ko dégg nga am di nga dem fa nga dëkk nit te la nga jox ko te si lii lañ ko jëlee moo tax lii ñu def dañ ñu si war a jàppale fonk ñu si korog bi yëf yi yëwee ñañu nañ na nga xamee ne ñoom la ñu jël encadré leen dégg nga maam sàmm seen yëf mooy mooy ñi nga xamee ne ñooy chinois yi implanté fii fii ngay gis yëpp lii ngay gis yëpp ay chinois magasin chinois la ba autorité yi ñëwoon war nañoo saafara fii ñoom foofu la ñu saafara ABT bi ñu yor fii koro bi lakk gi commencé benn benn benn ndox benn benn camion ndox rek mënoon na ko fay waaye ba ñëwee amuñu fi cinq minutes dix minutes la ñu am susu susu ne mi dafa yéex ñu ngi wutaat ndox bàyyiwaat une heure temps lakk yeeg ci fii buñ ko doon saafara saafara ko fe xam naa nag li ñu ne fii da neexul waaye moomuñu ko ñu ko abal ki ko moom moo ñu ko abal tey état bu ko moomoon fii ne maasé la na ko ba mu jeex set wecc ba def fi ay barrière teg fi kon ñaari conteneur policier ne kenn du dugg xam nga loolu amu fi kon mooy wane xëy na nag li ñu nekkee moo leen neexul waaye bu ñu demee ay jàmbur yoo xam ne ñoom moom seen alal du ñu abal te nguur nekk waroon ñu jox fu ñu war a nekk di liggéey defaluñu ko jàmbur xool ne lii métti na defal ñu ko te kat ñu ko defal dëkkuñu Sénégal di ay étranger lañu jël lu mel ni jox ñu ko ay ati at am na ñoo xam ne fii barke rasulilaay lu ne lañ fi am. ay moom ñu place. non non fii terrain bi sénégalais kii sénégalais bu ko amoon ko abale ah, xëy na mu tàmbalee si man mii fii am na ñu koy def de xaw ma leen waaye mënta ñàkk. waaye fii moom ki ko ñi ko moom duñ dëkkuñ fi da yàgg nañ fi nag fi lañ juddoo fi lañ yaroo mais cosaanawuñ fi parce que àddina dafa am leen ñeent yi moo fi ne borom xam-xam bu ñu yar day jariñ boppam day jariñaate borom xam-xam bu ñu yarul kooku naa feqal lay doon du dimbali kenn du dimbali boppam ku amul xam-xam te yar la kooku des koy dimbali dégg nga wax amoo xam-xam te ñu yar la kooku dañ koy dimbali ku amul xam-xam ku amul xam-xam mooy war a ñu tëj suñuy bunt bu ñu wanee ginnaaw war a caabi suñuy bunt parce que dañu am xam-xam te amuñu ah, xam-xam te yaruñu leen mooy ñu naan sàcc yeex yu kenn xamul boo amee xam-xam nag te ñu yar la da war a dimbalaat mais malheureusement réew mi dafa bëri ñu am xam-xam ba pare duñ dimbali kenn waaye duñ dimbali seen bopp parce que dimbali doomu aadama mooy dimbali sa bopp te looloo fi jafe ñu ngi leen di masaw lool lool lool lool fa mu yem yem na fa man li ma yàqule fii mu ma la ko waxoon da nga naan déedéet waaye su suma ko fenn sudul si yàlla suñu borom. kon yow yàqule nga fi lu takku. waaw waaw matériel yi nga xam moom laa doon liggéeyee parce que amoon naa fi benn ma euh, poste boo xam ne légère la woon. parce que daa ngi jëm mag maa am xale boo xam ne xarañ na si armignon gentil armignon yi nga xam day fett si 4x4 yeeg yooyu bu ñëwee ñu suudal ko mu for si 5000 des fois 10 000 bu ñu paree ñu séddoo maa gone yi fi nekk. te ñun ñi fi nekk suñu wàllu wéy na boo gisee ñu siy sonn xale yi ndaw yi nga xam ne ñoo fi nekk encouragé leen pour ñu liggéey parce que wóor na wóor yàlla xale yi fi nekk fii ah, li ñu fi jariñoo ah macha allah xale yi ndaw ñoo fi nekk di jariñu moo gisee ñu si sonn ñun mag ñi ñoo xale yee tax. fi ñu taxaw nii nga ne place menuisier la. waaw place menuisier la woon waaw waaw suñu la woon waaw. d'accord def ngeen fi ay ñaata at. waaw yàgg nañ fi de xam naa war nañ fi def ay. yàgg na daal. fi laa jàngee métier waaw. d'accord nan nga yëgee li nga xam ne moo fi xew. waaw métti na trop wax dëgg yàlla métti na trop ay une heure matin yooyu la lakk bi commencé ñu nekk fi mais def nañ lu ne daal mais dara génnu daal. waaw waa fi la ma fekk. am na ñoo xam dañ fi fanaan seen seen bagage suñ néeg lañ fanaan waaw fi lañ dëkkoon atelier beeg nii yëpp lakk. waaw waaw waaw place bu mag la woon quoi. léegi yow bi ngeen fi tëddee ba mu guddi lakk-lakk mooy yee wala lan la demee. lakk-lakk bi buriw moo ñu yee nag lakk-lakk bi fële la commencé si ginnaaw fële. foofu la commencé waaw. lakk di ñëw après si lañ jéem a génnee mais daal dara mujjul génn daal. yow bi waaw jàpp deux euh, ah, waaw métti na trop. mett na de billaahi mett na trop jéem nañ def lu nekk mais nit ñi itam mën nañ seetaan sax parce que bi ñuy génnee fii ne am na ñu taxaw fee ne di filmer ñu leen di woo mais daal kenn kenn jàppale wuñ daal daanaka waa koñ bi eh, malheureusement daal lépp noonu la yàlla noonu la ko yàlla tuddee daal waaw loolu donc yéen ngeen fi lakkale si bagage dafa bëri. waaw bëri na moom parce que amoon na ay armoire li fi nekkoon ak lal ak ay liggéeyu jàmbur daal li fi nekkoon ay commande jàmbur waaw li fi nekkoon yëpp lakk ba jeex benn armoire rek moo jot a génn waaw. fi atelier bi doonoon ngeen fi ay ñaata personnes. fii man trois personnes la ñu waaw voilà mbokki téléspectateurs yi gis ngeen ñu ba ñu ñëwee ba léegi ñu wër nañu pàkk bi yëpp mu nekk bayal bu yaatu boo xamante ne macha allah lépp lu fi nekkoon nag lakk na ba jeex waaye fi ñu taxaw nii garage mécanicien la gis oto yi nga xamante ne moo fi nekk tamit benn oto génnu lépp lakk na ba jeex ñu ngi fii ak ki nga xam ne mooy bi nga xam ne moom place bi ñu nekk muy bawal ñu ne man boo demee laajteel bawal mécanicien xanaa moom bawal bawal la maa ngi lay nuyu ku baax maa ngi lay fay soxna si ñu ñëw fekk la tey sa place jéyee ji nga xam ne moo fi am barki démb ci guddi nan nga ko yëgee ah xanaa sant yàlla rek bërki bi daal ci guddi ay booru une la ma gardien bi woo ne fee ngi lakk ma jóg ñëw ma ñëwee fekk yàlla dogal affaire yi ëpp ñu doole lool ah fi la ñu fekk sapeur nag waaye bi ñu fi fekkee sapeur ah, avant ñuy kii daal xawoon naa doy waar lool moo tax nag mu mel nii waaye nag sant yàlla rek. yow yàgg nga fi. waaw depuis 86 ba léegi maa ngi fi. waaw ba léegi maa ngi fi waaw. voilà léegi yow euh, fi nga nekk ni nekk sa place boo doon xayma lan nga fi yàqule. a ah, xanaa xaalis bu bëri parce que ay ambulance ay 4488 ay Prado ay Land Cruiser ay Mercedes yooyu fi yàqu xaalis bu bari moo fi yàqu waaw. tey ay yu baax la woon yoo xam a baax bii Toyota V8 la bala Isuzu la lële ambulance la matériel complet ñaar yooyu bii. Euh, ambulance la matériel complet bële ambulance la bii fortuné la waaw moom xaalis bu bëri wax dëgg yàlla moom waaye nag ay oto rek moo fi yàqu nag xaalis moom yàqu fi mais ay oto daal dégâts matériel daal moo fi am waaw wax dëgg yàlla waaw. li nga wax ni boon xayma mu nekk ay mu nekk euh, lim bu takku si xaalis. ah waaw <laughs> xaalis waaw lim bu takku lay doon moom lim bu takku lay doon wax dëgg yàlla. Hmm. waaw nga nekk fi 86 ba léegi place la boo xam ne dañ leen ko luwee woon wala dañ leen ko jaayoon wala. place la boo xam ne ki ko moom génn na àdduna mais njabootam moo fi des waaye yàlla dafa dogal mu ne woon fii dama ko fàggu pour néew ju doole yi di ci jaamu moom mu jaamu ci yàlla pour néew ju doole yi di ci dimbandiku di dundal seen njaboot. boroom mu suñu ñu ci laaj juróomi dërëm nii lañu fi nekkee laaju fi kenn dara. waaw noonu daal la demee wax dëgg yàlla waaw. yow daanaka kon bokk nga si ñi nga xam ne si njëkk a sanc place bi si nga bokk. waaw ci laa bokk ci ñu ko njëkk a sanc ci laa bokk wax dëgg yàlla parce que même lii yëpp man lañ joxoon responsable bi ma yore woon ko. kon yaay responsable bërëb bi parce que gannaaw boo fi fan fanweeri at ak juróom-ñett daanaka. ah waaw ci laa bokk de waaw ku nekk ak sa ruq sa ngay yëngoo waaye nag wax dëgg yàlla nag moom ci responsable yi daal laa bokk wax dëgg. ñi ma fa fekkoon moom daanaka ñëpp faatu nañ parce que ay mag laa fi fekkoon waaw mais ñëpp gaañu nañ ñu ci bëri waaw. biñ la wooyee ne la seen place mu ngi lakk en tant que responsable am fi ay euh, bagages yoo xamante ne mu ngi fi nekk euh, ban yëg-yëg nga am ah, am naqar rek. waaye nag la métti rek ci loxoy yàlla am ci naqar rek waaye nag mënuma ci dara ma ñëw damaa taxaw mënuma ci dara xool comme ñëpp rek waaw di sant yàlla rek daal wax dëgg yàlla waaw. côté bii daal la jóge waaw côté bii daal la jóge mais xamu leen ba tey moo ko sabab. déedéet ba léegi xamaguñu ko. mais waaw man nag looloo ma jaaxal ba léegi man gisuma benn autorité bu fi ñëw ne wow na wala tooy na loolu daal moom jaaxal nañu trop wax dëgg yàlla waaw mu ngoog. parce lakk une jàpp deux heures du matin euh, seen bagage yëpp lakk mel ni pàkk bi li muy yaatu yaatu macha allah dara génn. ma ne la euh, carnet facture sax génnut. carnet facture génnut ci mel waaw dara dara dara yàlla xam na ne dara génnut mais yàlla baax na. léegi ban attente ngeen di xaar si peut-être ñu leen war a mën a jàppale. ah xanaa ñi ñu jaboote waaye nag sama xel daa xaw a tey ci ki la jaboote gis nga ne ci fitna te ñëw sa xool la ne la massa it dafa xaw a doy waar lool waaye nag yàlla baax na. voilà mbokki téléspectateurs yi gis ngeen li nga xamante moom moo am fii nga xam ne mooy Petersen pàkk bi nga moo lakk bërki démb si guddi mu nekk nag jëye ju ne nii gis ngeen pàkk bi li mu yaatu yaatu masàllaa lépp ba jeex dara génnewuñ ko nit nag ñàkk fi ay kenn ku nekk la nga ñàkk yow yaa ko xam ay xaalis bu bëree bëree bëree bëri ay matériel ak mu nekk loo xamante ne métti lool la gannaaw ñi nga ne def nañ fi depuis def nañ fi 28 ans ñuy def fi 30 ans ñuy def fi ne daanaka responsable la fii si place bi muy Bawas ne moom def na fi 38 ans temps xam nga ñoom ñëpp ñu ñàkk seen ay matériel ñàkk seen ay bagage mu nekk loo xamante ne lu metti loolu lool ndax xam ngeen kuy jaay moom lu mu jot daal di jënd teg bu xëyee xëy lakk le loolu day nekk perte boo xamante ne bu métti la ñu ngi leen di massaw bu baax a baax ndax massa fejul xol waaye sedd na euh, fejul naqar waaye sedd na xol ñu ngi leen di massaw bu baax a baax waa pàkk bi nga xamante ne mooy pàkk bi nga xam ne fi lañ nekkoon tey muy Petersen ñu leen di massaw bu baax a baax gannaaw jëye ji fi am jaajëfal naa équipe bu bu baax a baax Papis Mbaye si coordination yu Pape Mendy waaye tey Papi euh, moom laa àndaloon Papi moom laa àndal tey si caméra bi mu jàpp si liggéey bi liggéey bu am solo Omar si oto bi jaajëfal naa leen rendez-vous incha allah Lamine Mbengue mooy montage bi rendez-vous incha allah mardi 13h30 si beneen émission xew-xew si biir 7TV télé bi ñu nuru ba nopp du ñu dajale jërë ngeen jëf